alhamdulillahi alladi axkama alumuura wa qaddaraha wa qaddara al ashyaa wa dabbaraha wa dabbara almawjudaati wa sawwaraha wa sawwara alxaliqata wa azharaha wa azhara alasraara wa tahharaha wa tahhara alquluuba wa nawwaraha wa nawwara alkawaakiba wa sayyaraha wa sayyara alaflaaka wa saxaraha wa saxara alriyaaxa wa nasharaha wa nasara alsuxba wa amtaraha wa amtara alriyaada wa azharaha wa faddala mawaasim altaacaati cala saa'iri alawqaat wa lilxayraati walbarakaati yasaraha wa sharafa shahra ramadaan cala jamiici alshuhuur wa xassa layaalihi bilfadli almashhuur wa bitawfiiri alujuur shahraha wa mayyazaha bi alqadri allati hiya xayrun min alfi shahri mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellusiwaat ci seen émission madxu nabi tabaarakallahu ci seen télévision safina tv macha allahu Euh, ñu nuy leen bu baax ziar leen ñaanal leen yàlla weeru koor wi yàlla na ko yàlla nangu lépp luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla mi nga xam ne mooy nangul jaamam yàlla nañu yàlla nangul ci ji sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu tey nañu bëgg a waxtaan ak yéen ci bis bu tedd bis bu màgg lool muy bisu laylatul qadri nga xam ne yàlla bind na fukki weer ak ñaar waaye tànn weeru koor muy sangu weer yi mu tànn ci biir weeru koor bisu laylatul qadri muy sangu bis yi mbokk yi mawlaana subhanahu wa taala jël lu foor lool muy waxam ju tedd jii di alquran al karim nga xam ne lim bëgg lépp moom yàlla wax na ko ci waaye lim bañ lépp moom yàlla wax na ko ci alquran jooju yàlla tànn nag bisu laylatul qadri fa tabaarakallaahu daal di ko ciy wàcc ndax yàlla moo ne inna anzalnaahu fii laylatil qadri inna naka ñun yàlla arab yi dañuy wax naan damirul mutakallim muazzimu nafsahu awil musharak yàlla bu utiliser waxam ci naa borom grammaire dañuy wax ne naa ci ñaar lay dox benn ki koy wax day màggal boppam wala am ñu muy yóbbaale géew eh, tabaarakallaahu bu ne ndax jàng ngeen nga ne waaw jàng nañu hmm? et pourtant li nga waroon wax mooy jàng naa mais da nga ne jàng nañu kon yaa yóbbaale gaañu géew lekk ngeen nga ne lekk nañu kon yaa leen yóbbaale géew wala boo nga bëgg a màggal sa bopp daal di jëfandikoo baatu naa tubaab da koy wax parfois léeg-léeg nga benn nit nga mën ko wax s'il te ne ko s'il vous plaît ngir màggal ko jox ko wàccu waayam day yàlla ne inna naka ñun yàlla da yaakaar ne yàlla yu bëree am waaye benn yàlla rek la waaye day màggal boppam mu ne anzalnaahu ñoo wàcc alxuraan fii laylatil qadri ci bisu laylatil yàlla dafa njëkkoon ne ñoo wàcc alquran fii laylatil mubaarak ci bis bu ñu barke ci guddi gu ñu barkeel mu mel ne dañ ko laaj ne ko waaw yàlla guddi gu ñu barkeel googu mooy ban guddi mu newaat inna anzalnaahu fii laylatil qadri kon guddi gu barkeel googu mooy guddik laylatul qadri qaala ibnu abbas radiyallahu anhuma anzala allahu taala alqur'ana jumlatan waxida min allawxi almaxfuuz ila bayt alizza fi laylatil qadr min shahri ramadan ibnu abbas nee na yàlla daa jël alquran jépp wàccee ndoo ko benn yoon jële ko ci lawxul maxfuuz indi ko ci baytul izza daal di ko fay jóor foofu la ko sotti dajale ko fa léegi nag fa la ko jibril di jëlee nag di ko wàcceel Seydina Muhammad étape par étape étape par étape action bu am rek yàlla wàcc aaya ne njool màkka nii ak nii ak nii lañ koy doxalee fa tabarakallahu moo tax mu ne wa fi tasmiyatiha bi laylati l qadri xamsu wujuhin mu ne nag li tax ñu tuddee laylatul qadri laylatul qadri juróomi yëf a tax mu ne ba ca njëkk inna al qadr huwa al azamatu wa hiya laylatun azima bu ne al qadr mooy lu màgg ñu namu ci lan guddi gu màgg gi te mooy guddi laylatul qadri ñaareel mu ne innahu dayiqun fi laylatin tadiqu fiha al ard an al malaikati alladina yanzilu min alsama mu ne alqadr day day firi ba tey lu xat ñu ne parce que guddig laylatul qadri malaayika yi yépp ñooy wàcc ci suuf bàyyi ko asamaan wàcc moo tax jaww ji dafay daal di suuf si dafay daal di xat ndax malaayika yi ñu ñu seen ñu ñëpp ay wàcc moo tax euh, tabaarakallah boo ko lañ tax ñu tuddee ko tamit laylatul qadri ñettee bu ne inna al qadr huwa al xukmu fa inna al ashyaa tuqaddiru fiiha mu ne alqadr dañ ko firé ba tey alxukmu te muy atte wala mu ne mën ko firé ak xereñe mu ne parce que mbir yépp yàlla nga koy décider ci bisu laylatul qadri ci guddi googu lañuy ñuy programmer programme ñu war a dund ba déwén wërsëg yeeg tabarakallahu lépp ci lañ koy programmer muy lu am solo mu ne ba ci topp mooy illam yakun qadr basiran bi muraatiha isa qadar waaw parce que tamit mu ne ñeenteel mu ne mooy ci nga xam ci la yàlla di settantalaate mbir yi ci la yeesale tamit euh, dogal yi mu bëgg a dogal innahu nazala fiha kitaabun zu qadrin wa malaikatin zu qadrin mu ne juróomeel bi mooy bisu laylatul qadri li tax ñu tuddee ko tamit ba tey bisu laylatul qadri mu ne mooy bis bi nga xamee ne ci la ñuy wàcce téere bi nga xam ne moo am daraja di alxuraan ak malaayika yi nga xam ne yàlla leen darajaal ci la ñuy wàcc ci kaw suuf bokk ak xeetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam guddi gi muy guddi gu am solo mbokk yi guddi gi nag yàlla ne njol màkk inna naka ñun yàlla anzalnaahu ñoo wàcc alxuraan fii laylatul qadri ci bisu laylatul qadr yàlla na njol màkka wa ma adraaka ma laylatul qadri yow sayyiduna muhammad man yàlla xamaluma la ba tey lan mooy laylatul qadri waaye daal laylatul qadri daal jàppal ne guddik laylatul qadri jàppal ne guddi gu màgg googu jàppal ne daal xayrun moo gën min alfi shahrin ci junniy weer junni weer yoo jaamu yàlla yàlla nangul la sag jaamu la nga cay am ci tiyaaba lu muy bari bari bari bari guddik laylatul qadri boo ci jaamoo yàlla la ngay am ci yiwu mu ëpp doole fuuf junni weer te bokki junni weer 83 ans yu teg la te xam nga 83 ans yu teg tabaarakallahu nga jaamu ko yàlla yàlla nangul la lépp guddi gu ko wecc guddi googu du guddi gu ndaw fa tabaarakallaa guddi googu nag mooy guddik laylatul qadre guddi gi nag boroom xam-xam yi wuute ci waaye nag bul fàtte na ixtilaaful ulama kooku rahmatun lil ibaad wuuteeg boroom xam-xam yi yërmande la ci jaamu yàlla yi waaw yërmande la ci jaamu yàlla yi moo tax soo bëggee noppalu li ngay def mooy su weeru koor bi teroo jàppal ne bis bu nekk bis laylatul xadri la nga def ci la ca war rek jaamu ci yàlla def ci la nga ci war a def lépp boo ko defee ba koor gi jeex bisu laylatul xadri bi du la rëcc am ñu ko jàpp nag ci ñaar fan ak benn am ñu ko jàpp ci ñaar fan ak juróom-ñaar am ñu ko jàpp ci 15 jours yu mujj yi am ñu ko jàpp ci 10 jours yu mujj yi waaye loolu lépp soo ko xoolee yërmande la rek ci jaamu yàlla yi ndax yàlla dafa am yoo xam ne daf koy nëbb dañuy borom xam-xam yi dañuy wax ne nit bàkkaar bi ko yóbbu safara benn bàkkaar rekk la waaye yàlla moo ko nëbb ci biir bàkkaar yi ngir bëgg nga moytandiku bàkkaar yépp waaye tiyaaba bi la yóbbu aljana benn tiyaaba rekk la yàlla nëbb ko ci biir tiyaaba yi ngir bëgg nga def tiyaaba yépp yiw yépp nga def ko am na waxtu boo xam ne ci aljuma loo ca ñaan yàlla nangu ko waaye yàlla nëbb na la ko ngir bëgg rekk nga fonku tabarakallah waxtu yépp kon yàlla mooy nëbb ay mbiram ci ay ci biiri mbir leetu qadri tamit noonu la ko yàlla nëbbee waaye fa tabarakallahu ñun ñi nga xam ne ay taalibe cheikh lañu tabarakallahu ñun fi ñu ko jàpp mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar maanaam guddik ñaar fukki juróom-ñaar waaw guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar boobu nag laa bëgg ay leeral yoo xam ne ci lañu sukkandiku ba jàpp ne foofu la donte nag ñu ngi respecté ñi ci des ndax ku ci nekk fa nga sukkandiku ba ne fii la fu wóor nga ko teg waaye nag ñun moom fi ñu sukkandiku muy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu laa bëgg a leeral gis nga saar bi ñu wax indi inna anzalnaahu soo ko dee xool par par mot trente mot la daal di tolloog jours weeru koor soo jee waññi ay moo moo nag ba ak ci ci salaamun hiya mooy tombeeg juste vingt sept kon loolu benn signe la buy wane ne kon vingt sept bi yaakaaru na boo ne inna anzalnaahu fii laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shehri tanazzalul malaikatu warruuxu fiiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya mooy vingt-septième ba juste kon loolu rek wane na vingt-septième jour bi tegtal bu wóor la ne mooy laylatul xadr ndax yàlla denc na ko ci biir saar bi muy benn secret baatu hiya hiya boo xoolee halkubéer la ak yaa bu ñu ak yaa boo siddaa yaa gi nag bu dee nekk ñaari yaa te yaa diis la nga jël ñaari diis yooyu boole ko mu jox la vingt nga jël halkubéer bi cinq la muy vingt cinq léegi am nga vingt cinq nga xool halkubéer gi muy benn leetar nga xool yaa gi muy benn leetar nga jël ñaari leetar yooyu rek tegaa ko ci cinq yi mu jox la 27 yaa ngi bàyyi xel baax kon loolu tamit beneen signe la buy wane ne kon 27eem jour bi mooy bisu laylatul qadri lettre inna anzalnaa saar wi boo ko doon xool par lettre mu ngi lay jox cent 114 lettres tolloog 114 saar yi nekk ci alxuraan yaa ngi gis waaye tey baatu alqadri boo doon xool ci rang bi ma la limal léegi baatu alqadri mu ngi tolloog ah mu ngi tollook numéro 5 ak numéro 10 ak numéro 12 fala baatu qadri tomb tombeel baatu qadri bu njëkk bi mu ngi tolloog numéro 5 ñaareel bi mu ngi tollook numéro 10 ñetteel bi mu ngi tolloog numéro 12 10 plus 22 plus 5 mu jox la 27 kon ba tey loolu day wane tamit 27eem bi signe la bi wane ne tabaarakallaahu am na yaakaar ne mooy wisilatul xadri nga ñëwaat ci saar ba tey baatu laylatul qadri mu ngi répété ci saar bi trois fois te laylatul qadri boo xoolee lettres yi mu ngi lay jox neuf lettres neuf fois trois mu jox la ba tey vingt-sept kon fa tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñoo ko jàpp vingt-septième bi ca mooy ñun taalibe cheikh yi fii lañu ko teg fa tabarakallahu muy guddi goo xam ne nee naa na tanazzalul malaaikatu war ruuxu fiiha malaayika yi dañuy wàcc ànd ak jibril waaye nag biis ni rabbihim wàcc goo xam ne ndigal la bu bàyyeekoo ko ci yàlla yàlla moo leen yebal ne leen wàcc leen ngeen ànd ak xeetu sayyiduna muhammad ci guddi gi ngeen di leen jéggalul seeni bàkkaar ba keroog fajar gi xar su fajar gi xar nag ci la malaaka malaaka yi daal di embarqué mboolem jëf yu baax yu jëfoon ñu daa koy dajale yóbbu ko nag ci yàlla kon mbokk yi bis boobu xam nga ne bis bu màgg la waaye bis bu tedd la boo xam ne tamit fa tabaarakallaahu jaam bu nekk war na caa mën a profité jaamu ci yàlla macha allah kéem kàttanam sayyidatuna Aïcha nag laajoon na sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ne ko waaw guddi gu màggee nii guddi gu teddee nii. waa bu ñu doxee ba yegg ca naka la ñuy def jol màgg ne ko da ngay wax ne allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni bu dee yow rek sa bopp ngay ñaanal faafu anna bu dee da ngaa bëgg a yóbbaale jaamu yàlla yi njol màkka ne ko naan allahumma yow buur bi nga xam ne yaa yelloo melokaan yu jekk yu rafet yu taaru yi innaka yow rek afuwun yaay kii baale karimun yaay ko tëdd gi te sax yow tuhibbu da ngaa bëgg lool af al afwa njéggal waay waay faafu anni jéggal ma wala nga ne waaye waay faafu annaa jéggal ñu nga def ko 70 fois nee na boo ko defee ca guddi googu bàkkaar boo mosoon a am lu mu rëy rëy rëy yàlla jéggal la bakkaar boobu boobule kon mbokk yi guddi gii daal guddi la goo xam ne mën naa wax ne cadeau rek boo xam ne yàlla moo ko jël jox ko xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir defar seeni mbir kon fa tabaarakallaahu guddik jàng alxuraan la guddi zikar la guddi naafila la salaatu tasbiix ko ci mën nanga ko def ndax ibnu abbas la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ko yaa abbas xanaa duma la jox loo xam ne dafay réparer sa mboolem julli yoo julli woon ah kay yaa rasulallah loolu kay am na solo ci la ko joxee salaatu tasbiix salaatu tasbiix soo ko defee yàlla dafay réparé mboolem julli boo mosoon a julli ba nga juddoo ba fi nga toll te xam nga nag julli yi mbokk yi bari na ci julli yoo xam ne nii gaa yi ñu ci bëri dañuy julli rek ngir ay julli lañ mën ñoo ñàkk julli ñu julli rek jàll waaye julli yi bëri tabaarakallah yow boo paree sax da nga yëg ni yow santi rose na yow yaa ngi doon julli. ndax non seulement doo teewlu da nga yàkkamti boo sëlmalee baaqiyaatu saalihaat sax doo ko def boo sëggee subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi est ce que yaa koy wax boo sujjootee subhaana rabbiyal aala diggante ñaar sujjootee rabbi xfirli est ce que am nga jot ba ah parax paraxi rek gaaw sëlmal fëgg daal di daw ndax jamono ji metti ji ndax problème yeeg tabaarakallah soxla yeeg njaboot gi tax na kenn talatul dara. boo tax na jaamu yàlla na mu waree sax léegi dafa jafe kon nag boo amee nag loo xam ne nii fa tabaarakallaahu soo ko defee yàlla réparé sa julli gépp bis boobu mat naa sàggane yontu yàlla Muhammad Abbas ne ko waaw lii naka laa koy defee mu ne ah, soo mënee chaque jour nga def ko Abbas ne waaw su ma ko mënul nag mu ne ko chaque semaine nga def ko Abbas ne ko waaw su ma ko mënul nag mu ne ko chaque weer nga def ko. abbas ne ko waaw su ma ko mënul nag mu ne ko sak at nga def ko mu ne ko waaw su ma ko mënul nag mu ne ko nga góorgóorlu na ba sa giir dund nga def ko sax benn yoon doonte ne benn yoon nga def ko kon fa tabaarakallaahu abbas ne ko waaw loolu moom day yem ci man rek wala mu ne ko dag jox naa la ko ak képp koo ko jox am na ci ndigal moo tax fa tabaarakallaahu loolu nag moo ñu topp ba ñun tey ñu jot ci kon fa tabaarakallaahu abbas yal na yàlla dolli ko xéewal yal na yàlla gën a yokk ay leeram yàlla gën a gën a barkeel ay mbiram tabaarakallaahu ndax moo ñu fàggul lu ni mel ndax bi ko Seydina Muhammad joxe moo na ko yemale ci boppam hmm, waaye nag fexe na bañ tabaarakallaahu ñun ñëpp ñu daal ciy jot hmm? kon loo fa tabaarakallaahu am na solo kon daal inna anzalnaahu la yàlla wax laylatul qadr ngi noonu ci la alxuraan wàcc waaye mbokk yi dafa am benn seetlu boo xam ne faa ñu taxaw ñu seetlu ko foofu ndax boo xoolee alxuraan ñu ngi ko wàccee ci weeru koor ci guddig leetu xadar lañ ko wàccee ci guddig leetu xadar mu ci biir weeru koor waaye alxuraan moo ñëw di signaler weeru koor alxuraan moo dara jaal weeru koor alxuraan moo publicité weeru koor Imam Moussa Fall yàlla na yàlla fay ko fa tabaarakallaahu jamono jee paase dafa ma ko déglu ci ITV e wala ITV e muy wax lu am solo mu ne ay Haamaan ay Firawna ñooñu nga xam ne ay buur yi beew lañu woon yàlla tudd leen ci alxuraan et pourtant ñoom tekkiwuñu dara mais booy jàng alxuraan ba tudd seen tur yàlla da lay bindal tiyaaba looloo ci déggee mooy alxuraan moo barke ba lu mu laal loolu barkeel kon fa tabaarakallaahu weeru koor weeru yërmande la boo xam ne yàlla moo ko jox xeetu sayduna muhammad salaa sallam ngir defar seeni mbir weer woo xam ne fukki fan yi njëkk yàlla dañuy sëpp tiim ñu naan ewaay eh ku bëgg yërmande ku sàkku yërmande ma yërëm ko ana moo bëgg yërmande fa tabaarakallah ku ko bëgg yàlla jox la yeneen fukki fan yàlla sëpp asamaan naan ana kuy sàkku njéggal ma jéggal ko ay bàkkaaram ak bàkkaar ni mu yombee da ngay toog sa sa saal taal sa télévision fekk ñu ngi lay bindal ay bàkkaar te yëguloo ko ndax yaa ngi seetaan bu dee góor nga yaa ngi xool ay jigéen yoo xam ne ñu nga def yaramu neen ka teg ci sa bët ñu la bindal bàkkaar bu dee jigéen nga yaa ngi dajeek ay góor ñoo xam ñu ngi def ay yaramu neen nga teg ci sa bët ñu la bindal bàkkaar te yëguloo ko kon bàkkaar daa yomb kon nag ku gis fu ñuy fóotee ay bàkkaar nag ca profitoo yàlla nag ku soxla jéggal ma jéggal ko bu jéggaloo yàlla yàlla jéggal la say bàkkaar yépp beneen bi mu ne yeneen fukki mujj yi nag nekk atqun min an naar gora ci safara safara nga xam ni mu tàngee safara bii ñuy toggee suñu añ yeeg reer yeeg ñum seen takkandeeru bële la te gis nga ni mu tàngee kon benn mu ramel a waa ku ca bëgg a mucc nag yàlla nee na maa ngi nii ku ñaan rek moom ci beeru ci weeru koor ku ci ñaan njëg mucc safara rek mu musal la ca moo tax sayyiduna Muhammad nee na weer wu teddee nii am bis bu màggee nii rekki waaye ci dëgg-dëgg nag bu ñëwee ba jàll ku sàggan ba jéggalul la say bakkaar ca dëgg-dëgg-dëgg yaafus nga waaye ci dëgg-dëgg-dëgg jaaxal nga ma kon fa tabaarakallaahu weer waa ngi noonu li mu ëmb bari na sànq rek maa ngi ko waxee ci euh, émission ba doon def ci ITV euh, e tabaarakallaahu macha allahu nga xam ne maa ngi ci wax ne weeru koor nekkul ne rek yàlla dafa ñëw pour bëgg ñu xiif yàlla dafa am lu muy jàngale yàlla daf ñu bëgg a jàngal ne bakkan li koy yar mooy xiif moo tax soo sooboo yoon yàlla bëgg lekk doo yegg faaw ngay xiif ngir nga mën a yegg ndax sooy xiif sa biir dafay am leer yàllaa ngi jàngal ci xiif gi ne am na miskin yoo xam ne ñu ngi fii ndeysaan duñu am lu ñu lekk bu añ jotee duñu añ bu reer jotee duñu reer fa tabaarakallaahu boo fi jógee bis ni ki tey na nga leen bàyyi xel xam ne nii nga yendoo xiif te lekku la ñoom noonu la ñuy def bu ko defee nga mën leen a ba mën leen jox lu ñu lekk yaa ngi yàlla mu ngi lay jàngale ne la boo dee taqoo ay bàkkaar di ko def nga jéem-jéem ngir tàqalikoo ak bàkkaar yoo mënoo koo bàyyi del woor ndax soo wooree da ngay xiif te ku xiif dootal mooy yàlla kon boo xoolee li ci yàlla jàngale bari na lool waaye mu weer woo xam ne tamit yàlla ñu jox occasion ngir ñu mën cee profito delluwaat ci yàlla fa tabaarakallaahu ndax weer la boo xam ne dañuy jéng seytaan yi ay njabootam duñu am fu ñu jaar kon fa tabaarakallaa lu ci waay def rek sa bakkan nga topp waaye bul bul ko jiin seytaane weeru koor bakkaar bu ci waay def jàppal ne bàkkaar boobu sa bakkan moo la koy defloo mais du seytaane waaye nag bakkaar yi nga xam ne avant koor danga ko daan def koor ñëw mënoo koo def bàkkaar yooyu mooy bàkkaar yi nga xam ne seytaane moo la koy defloo ndax weeru koor dañ ciy jéng seytaane jéng lépp fa tabaarakallaa macha allah kon mbokk daal guddi gaa ngi noonu di guddi gu barkeel di guddi gu màgg bu ko defee ñu waajal ko ci jaamu yàlla nañ ko waajal ci sarax nañ ko waajal ci zikkar nañ ko waajal ci tuub nañ ko waajal ci jàng alxuraan nañ ko waajal ci lépp luy xeetu mbaax baax nañ ko ci waajal fa tabarakallahu kon nag yàlla nañ ci yegg ak jàmm ñu jàpp ko dimanche bii di ñëw insha allahu taala fa tabarakallahu yàlla nañ ko fekke ànd ak tal ak wér gi yaram waaye lépp luñ ci jaamu lépp lu luñ ci am yàlla ñu ko bokk ak xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yàlla yàlla defal leen jàmm te defal ñu ko def ci seeni poos te def ci suñuy poos ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen émission ci seen télévision Safina TV fa tabaarakallahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu